Aliou Soumaré ñu ngi lay nuyu. waaw ah, Sylvie maa ngi lay fay. Euh, nga di ancien international ñu bëgg tàmbali rek euh, question yi ak point de presse bi nga xam ne sélectionneur national de Lyon Aliou Cissé amal na ko euh, mu wax ni défaite moom défaite la rek waaye contenu bi moom moo war a baax loolu mooy lu wóor waaye nee na du def ab révolution maanaam coppite yi du bëri ci composition match bi nga xam ne moo war a dox suñu diggante ak Qatar tey ci ngoon. ban commentaire nga ñu ci mën a indil. waa li ma ci mën a wax mooy Sylvie Alboury Cissé li mu wax euh, nit mën na ko jàpp parce que défaite ñëw na c'est vrai que équipe bi football na li mu waroon football waaye am na benn moment d'inattention bu ñu am ba jël si ñaari but waaye waru tax mu changer completement équipe bi. wax dëgg yàlla parce que di ngay di ngay apporter benn ñaar wala ñetti changement d'abord par rapport ak euh, euh, blessure Cheikhou Kouyaté loolu moom kenn mënu ko ndax mun du mën a dem ci match bi. Hmm. beneen bi mooy euh, boo koy remplacer nga jël ku mel ni Pape Matar pour mu apporter un plus ci kanam a évidemment euh, Abdou Diallo bi nga xam ne dañ yaakaaroon ne du dem te faf ñu ne ñu tane na mun a delluwaat si postam comme défenseur central boobaa nag ñu jël Jacob su tek ko ci côté côté càmm ñu équipe ci kanam nag ñu mën a xool ne comme Crépin wax dëgg yàlla li li yaakaaroon ci moom gisuñu ko ñu dugal Iliman Ndiaye jox ko chance am donc ñaar ñaar wala ñetti changement yooyu daal dañ muñu am waaye révolutionné lépp chamboulé lépp loolu moom kenn mënu ko xel mënu ko xalaat mhm. euh, match bi war a ba ñu war a amal tey ci ngoon ak katar ndax match bu metti euh, la ñuy xaarandi waaw match bu metti la ñuy xaar tey si ngoon xam nga lu tax li ko waral mooy ñaari équipe yëpp dañoo perte seen premier match ñaari bal ci dara donc ñoo yem kiif kiif zéro point ak moins deux la ñu benn bi mooy premier ponk bi deuxième bi mooy euh, Qatar moo organisé coupe du monde am dëkkam la nekk donc du génn ci compétition bi euh, après ce match là parce que mat matu ngoon bi moom ku ko perte daanaka ci ñaar yi ku ko ci perte moom sot mondial jeex hmm. donc loolu ñoom ñaan ñëpp kenn du ko ci nangu loolu tax match bu nar a metti doon bu tactique bu match boo xam ne euh, mentalement na ci mën a génnee même su dee yaakaar ne ne Sénégal sur le papier moo gën Qatar foofu waaye football football ndax gis nañ fi ay équipe yoo xam ne kenn yaakaarul woon ne mën nañu daanu de daanu nañu donc match bu métti métti métti la ñuy xaar ngoon. Sénégalais ñoom euh, naka la ñu war a engagé match bi. waa ni ñu ko war a engagé mooy ñu war a xam ne ñun d' abord ñun ñooy champion d'Afrique benn. ñaareel ba joueurs yi ñu am ñoo gën am taxawaay ci ci ci ci ci football actuellement que waa Qatar yi ñetteel ba mooy waa Qatar comme seen dëkk lañu nekk fi mu nekk ni ñoom match bi si ñoom la gën a war a compliqué ndax ñoo organisé bu bugguñu toog aussitôt Sénégal nag woon ko ne équipe bu mag la yore am nañu ay joueurs yu am expérience yu joué si club yu mag a mag a donc taxawaay boobu la ñu war am bu daal balaa Euh, ñuy joué mi-temps bi war nañu commencé tàqali ko wax ñoom ba pare dugal ay parce que ni ñu ko waxee sànq suñu goal average baaxul parce que moins deux la ñoom loolu mun na compte ci jeexital bi. d'accord euh, mais tey euh, comme match suñu match bu njëkk bi ak Pays-Bas dañoo dañoo dugal ñaari bal yaa ngi koy wax sànq match bi ak Qatar war nañ am résultat bu baax ngir ñu mën a yaakaar ni war nañ mën a qualifier waaw mooy li nga wax sànq war nañ leen gagner lu bari pour mën a effacer goal euh, average négatif bi parce que moins deux la ñu am te moins deux bu demee ci njeexital ba dernier match contre Équateur goal mun na fa feeñ donc boo koy gagné tam war ko gagné par trois buts d'écart normalement pour effacer moins deux au la boo xam ne Sénégal war na ko gagné te war na dugal but ci bari tam. Mhm. Euh, kon war nañ am aussi score boo xam ne bu am solo la itam. ah waaw mooy mooy li ma wax léegi score bu am solo mooy minimum. ñetti bit war nañ ko dugal te waruñu encaissé pour pour mun a am goal average boo xam ne dina positif. Mm-hmm. d' accord euh, yow ban ban onze de départ euh, ngay xaar ci match bi la. onze de départ bi may xaar mooy équipe bi ñu démarré woon boo ci génnee Abdou Abdou Diallo delluwaat ci ak central bi nga dugal Jacob su côté gauche. milieu terrain bi Cheikhou Kouyaté moom ñëpp xam ne ne du bokk ndax gaañu gaañu jéem a dugal ko mel ni Pape Matar Sarr mu apporter un peu plus ak Krépin Diatta bi nga xam ne ñu doon xaar si moom gisuñu ko ñu jéem a jox Iliman Ndiaye mu mu démarré match bi jox ko changement man daal ñetti changement yooyu laa xam ne buñ ko defee daal euh, mën na mën na soppi xar kan mooy Mhm. à part euh, blessure bu Sadio Mané ba mu def forfait am na yeneen blessure yi nga xam ne euh, ñu ngi koy nemmeeku euh, ci biir équipe bi Fodé Ballo-Touré ak Cheikhou kuyaate jamono ji wóorul sax ni ñoom dinañ bokk ci match bi nga xam ne mooy dox suñu diggante ak Qatar ndax li ni mel mënul indil gàllankoor suñu équipe bi. waaw wàññi na doole équipe bi parce que déjà doole bi jëkk am atu bi njëkk bi gën a mag bi ñu amoon. mooy Sadio Mané déjà ñàkk kooku rek euh, problème la woon léegi nga dolli si Ballo Touré gaañu Ballo Touré sax mun ne wax ne am na naataangoo boo xam ne war na mun a taxaw taxawaayam muy muy Jacob su boobu moo wax. nag moom aussi ñàkk euh, gaañoom bi moom dina metti ndax parce que soo ko seetloo contre Hollande moom mooy joueur bi ko doon wone euh, xarañte taxawaay vraiment ba mu ñuy gaañu d'ailleurs bi mu génne sax la coow li commencé suñu suñu donc moom taxawaay moom moom tam dina manqué. waaye comme nag équipe bi ñu dajal ñoo ko xaw a ko doole mun na bañ a feeñ trop trop trop bu dee ki ko remplacer taxu na taxawaay bi ñu xaar ci moom. Mhm. Euh, ñu wax ci kaw suñu gardien de but Edouard Mendy euh, gis nañ match bi doxoon euh, ak suñu digganteeg Pays-Bas mu doon match boo xam ne Edouard Mendy ñu bëri nee nañ assuré wuloon noonu li nga xam ne mooy suñu kaaj yi tey Aliou Cissé moom la confirmé ngir match bi ñu war a jouer ak Qatar lan moo ci sa xalaat. waaw li sama xalaat mooy ànd nax moom ci loolu parce que tey ji boo génnewoon woon euh, Edouard Mendy ci da ngay indiwaat beneen problème ci équipe parce que bu boobaa équipe bi day déstabiliser totalement parce que ñëpp xam ne moom mooy gardien numéro un même yeneen gardien fa nekk sax xam nañ ne kii moo nekk ci kanam moom mooy gardien donte def na ay ñaari ñaari erreur yoo xam ne ku tënnañu bit waaye noonu waroo ko génne aussitôt après ce match là parce que day gën a yokk problème ci équipe ndax ki koy remplacer tam bu ñëwee dina ne man kat bu su ma defee njombe bu mel ni man tam doo moytu dootuma ci te loolu dafay indi tolof tolof parce que gardien bi poste bu xaw a compliqué la bu métti donc euh, Edouard Mendy li ko dal moom euh, c'est normal parce que dafa année bi muy c'est à l'image de sa saison parce que saison bi au niveau de Chelsea gis nañ ne titulaire u foon trop. saison bi métti woon. waaw waaw donc waaw donc donc loolu dafa commencé juste mais léegi Sénégal moo ko war a delloowaat confiance boobu. imposé waat ko mu toog titulaire ba jëlaat li assurance bi mu amoon pour bu delloo mun a nekkaat Edouard euh, Mendy bi nga xamoon mooy nga xam boo ko desee les meilleurs gardiens de but au monde. Mhm. maanaam dañ ko war a dooleel daal joxaat ko. confiance bi. exactement si bi mhm. dañ ko war a dooleel joxaat ko confiance parce que fii rek lañ ko mun a dooleewaatee parce que buñ ko fi dooleewaatul bu delloo Chelsea moom c'est ko dooleelul fii bu delloo fële day gën a métti si moom donc buñ ko dooleelee fii. ba mu delluwaat ni mu meloon delluwaat sagoom donc parce que léegi dafa am joueur moo mel noonu léegi da ngay jékki-jékki rek euh, confiance ba dem sago ba dem yëpp dem mais bu ñu ñoo koo delloo sagoom ba nga xam ne bu defee coupe du monde bu baax bu delloo fële mun na jëlaat li mu moomoon foofu mooy place de numéro un à Chelsea. d'accord euh, coach euh, jamono ji coow li bëri na lool ci suñu sélectionneur national di Aliou Cissé lan moo si sa xalaat. waaw Aliou Cissé moom coow dafa mos a bare si moom. Mm-hmm. ndax bi mu yoree sélection ba léegi toujours dañ ko daan critiquer te loolu moom yaakaar naa ne miin na ko xam na ko te loolu aussi moom mooy entraîneur moom mooy mooy moom lool moom daf ko war a xam su doxee ñu ne joueur la bu doxal ñu ne entraîneur loolu moom dans tous les pays du monde noonu la. Mm-hmm. noonu lay doxe mm-hmm. léegi nag euh, euh, moom xam na ko donc day dundax loolu waaye war na baat mu fàtte ne aussi bi mu jëlee ndam bi ak Coupe d'Afrique bi ñi ko doon critiquer yëpp dellu si leen sax demandé ko pardon. dëgg la sargal ko def ko donc hmm. yu baax critique positive négative moom. mënoo ko mais mais parfois quoi qu'on puisse yi. waaw moo tax ma ne la moom am na habitude bu doon entraîneur boo xam ne xam nga habitude def na sept ans bi donc léegi. Mm-hmm. donc bu doon koo xam ne mi ngi jël sélection mën na ko déstabiliser mm-hmm. mais lii tàmm na ko. même ci kan bi passé sax avant ñuy dem deuxième tour lu nekk dégg na ko parce Sénégal dafa daan gagné difficilement ces matchs là. Hmm. donc moom loolu miin na ko xam na ko donc il va te moo tax wax na ko si conférence am nee na moom mooy moom mooy ndey mbir ga bu bu problème amee moom la. il reconnaît que moom moo def erreur parce que moo def classement moo def ay changement xam na ko donc day jiitu nit ñi balaa ñu naan ko yow la mu ne la man la. Hmm. mu jëkk ko wax boppam. d'accord euh, coach de manière générale euh, coupe du monde bi commencé na euh, ça fait déjà quelques jours mais dañu gis ay grosses pointures yu ci mel ni Argentine Arabie Saoudite moo ko dóor euh, yu ci mel ni aussi Allemagne Japon moo ko dóor euh, euh, noo noo gisee loolu noonu. loolu li ma ci gis mooy léegi football amatul amatul frontière kenn moomatu ko. ndax joueurs yi fu nekk la ñuy di football ci àdduna. li mhm. nga euh, Arabie Saoudite nga ni ko ko ni ko ni ko euh, Argentine nga ni ko Arabie Saoudite def. Mhm. ah kan kan xalaatul woon loolu. Mhm. ñu dem ne déet na waaye Allemagne aussi. Japon def waaw Japon def ko lu lu ni mel. te te ni mu ko waxee mooy joueur ñaari joueurs yi mujj a dugg te dugal but contre dugal but contre Allemagne. ñoom ñaar ñëpp Allemagne la football. donc xam nañu joueurs yi miin nañ leen donc moo lay wan ne football kenn moomatu ko. Mhm. boo boo nelawee tuuti rek nelaw tuuti si match rek gaa yi gaa yi mhm. te football bi léegi équipe yi yëpp am nañu moyen ñëpp a wu bu baax. waaw ñëpp a ngi lekk bu baax di naan ba am suivi am voilà condition yëpp dafa mat pour mhm. footballeur léegi donc ñaari ay euh, euh, fukk ak benn nit ñooy taxaw fële beneen fukk benn nit taxaw ku nekk jàkkaarloo sa morom ñu teg bal bi si digg bi ku gën muus gagné ku gën a mun jël bal bi yóbbu ko sa kaw ma. parce que la football bi doon après amatul affaire bi bu njëkk ba comme bu njëkk nga xam ne Afrique dafa daan dem ñu koy dóor ay sept ak huit. léegi pour gagné équipe africaine da ngay wax lu sept ak sept ak sept parce que ñu ñoom ñoo bokk les mêmes championnat yi ni football. Mhm. Euh, kon bu ma la déggee baax daal coupe du monde bi dafa mel ni euh, lu ne mën na ci xew ay surprise surprise déjà commencé na gis comme nen ñaar mhm. léegi dootu te du ak ah, du fa yem de di nga gis yeneen surprise sax yeneen surprise parce que déjà contexte bi koy joué euh, Arabie kii euh, Qatar condition climatique yooyu dafay joué si rendement wu yenn joueur donc mhm. moo tax ma ne la ren di nga gis surprise yu doy waar yoo xam ne kenn xalaatu ko woon dëgg la Aliou Soumaré ñu ngi lay sant di la gërëm jërëjëf Sylvie maa ngi lay sant euh, di fàttali yow ancien international nga